garab bi nga xam ne mooy xeex wàllu filariose muy ivermectine ak garabu saan muy albendazole moom la ñuy wër di ko joxe ci kër yi muy ay garab yu am solo ndax dafay tax ba feebar yooyu ñuy wax tudde leen maladie tropicale négligée ñu fexe ba jëlee ko fii ci tuubaa te mu doon ay feebar yoo xam ne dañu nemmeeku ne dafa am ci askan bi mu nekk loo xam ne pour jële ko fi ay garab yoo xam ne la danga koy joxe su ko defee ku ko naan mucc ci feebar yooyu muy wàllu filariose lymphatique bi nga xam garab yi suñ koy joxe dañuy natt taxawaayu nit ki xool ñaata doom la ci war a jël ñu jox ko lim bi nga xam ne moom la ci war a jël euh, tàmbali nañ campagne boobu démb ci talaata ji tàggat nañ ay ndaw ñu leen di wax ay rële ngir ñu dugg ci kër yi euh, waxtaan ak boroom kër yi ngir jox ko xale yi ak mag ñi ndax garab yooyu dañ koy jox xale ak mag ngir aar leen ci feebar yooyu nga xam ne moom lañuy wax wax filariose lymphatique donc loolu tàmbali nañ ko ci talaata démb di ko wéyal ba samedi ba dimanche plutôt Euh, xale yi dinañu wër dëkk bi yëpp jox ko mag ñi ak ndaw ñi feebar bi nag daf fi nekk moo tax ñu jóg di joxe garab yooyu ñu tuddee garabu malaadi tropicale négligée yi may fàttali ne ñi nga xam ne ñoo ko war te jël mooy jigéenu wérut moom duñ ko jox ci garab yooyu ak jigéen ji nga xam ne dafa mucc te ba mucceeg léegi rombagul semaine maanaam day nàmpal te rombagul semaine nga xam su fekkee jéggi na semaine mën nañ ko ci jox waaye su fekkee matagul semaine nàmpal bi muy nàmpal duñ ko jox garab yooyu ak tuut tànk boo xam ne maanaam suñ ko nattee taxawaayam du mat juróom-ñeent fukki fukki centimètres muy quatre di dix centimètres su dee xale bi taxawaayam tollul noonu duñ ko jox ci garab yi ak ki nga xam ne dafa feebar ba tëdd nga xam ne daanaka li li gën ci moom mooy faj feebar bi ko tëral kooku duñ ko jox ci garab gi waaye su weesoo ñu ma lim ne waruñ ko jël ñëpp war nañ jël garab gi muy mag muy ndaw képp koo xam ne rek da ngay yeewoo ci dëkk bi nekk Touba nga xam Touba c'est une zone endémique mooy zone boo xam ne feebar bi daf fi nekk région de Diourbel muy tuubaa muy Bambey muy Njaareem muy Mbàkke feebar boobu ñuy wax filariose daf fi nekk ba tax képp ku yeewoo ci dëkk bi rek war nga jël ci doom yooyu ngir aar ci sa bopp ba tax tey ñu woowoon presse bi ngir waxtaan ak ñoom ci tëralin ak pexe yiñ tëral ngir ñëpp jot ci garab yi tàggat nañ nag ay ndaw yoo xam ne dinañ dem ci kër yi waxtaan ak nit ñi ngir jox leen garab yi ñuy ñaan di sàkku ci boroom kër yi ak kilifa yi yépp ñu fexe jàpp ci ba seeni njaboot jël ci garab yooyu ngir aar seen bopp ci feebar bi nga xam ne moom lañuy ñuy wax filariose lymphatique ñu ngi sant bu baax ci taxawaayu kilifa yi ndax daara yu bari dem nañ fa waxtaan ak sëriñ daara yi ba ñu ubbil ñu seeni bunt ñuy ñaan sëriñ daara yi nga xam ne xëy na yëgaguñ ko woon wala ñu ngi koy soog a yëg ñu fexe ba ubbil xale yi seeni bunt ngir ñu mën a ñëw jox ndongo yi ak tout tànk yi fa nekk ak mag ñi garab yooyu nga xam ne day aar nit ñi ci feebar boobu ñu tuddee filariose lymphatique ak aar leen ci wàllu saan kon ñu ngi sant bu baax di wax ni campagne bi dina dem ba dimanche gaaw dibéer dibéer nag ci la campagne bi di yem ñuy sàkku nag diggante boobu ku ci nekk fexe ba jël garab gi ni nga xam ne noonu lañ ko ko waxee su ko defee mu mën ko aar kon relais yi ak acteurs yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci processus bi di remercier suñu kilifa yi nekk ministère ak région bi ci seeni taxawaay ak ci jàppale bi nga xam ne jàppale nañ ñu ko ci campagne waaw maladie yooyu foog ñu leeral mosu fi jóge xëy na dafa wàññeeku woon waaye mosu fi jóge lu demee leen lèpre loolu fépp la am ci Sénégal mais dafa fekk ne foo xam ne nit ñi dañuy jaxasoo mu bari nit mbooloo yi bari yu demee noonu mën na fa am li mu ci doon li ko gën a yokk mooy xëy na nit ñi dañ leen gën a tàggat ci ñu koy ràññee ak di xam niñ koy saytoo ba tax liñ ci notifié xaw a bari par rapport ak at yi weesu su dee ci wàllu bilharziose ak yooyu ci atum bekkoor yi bilharziose xawoon na wàññeeku ndax euh, vecteur bi koy joxe muy euh, li nga xam ne fa lay jaare pour dab nit ki loolu dafa àndoon ak nawet ak ndox yuy taa ak ndox yoo xam ne maanaam day jege dëkkuwaay yi ak itam li nga xam ne mooy wàllu xale yi sangu ci ay déeg ak yooyu yu demee noonu comme taw bi nawet bi dafa dellusiwaat ndox mi di bëri te di taalu yàgg feebar yooyu léeg-léeg day jaar ci ndox yooyu di dal nit ñi surtout xale yi nga xam ne dañuy sangu ci ndoxu déeg yi ak ndox yu taayeeg yooyu wàllu bilharziose mën na leen dal su fekkee wàllu lèpre la lèpre euh, feebar la boo xam ne doomu jàngoro bi dañ koy noyyi soo ko nooyee mu dugg ci sa xëtër dal di jàll ci sa deret loolu feebar boo xam ne nag dañ koy noyyi fu mbooloo di bëri di jaxasoo di fa nekk lu yàgg mën na su dee kenn ci ñoom am na ko mën na wàll ñi ci des ba tax ñu jël ci ay matuwaay ngir xeex feebar yooyu nga xam dañ leen tuddee maladie tropicale négligée fii ci Touba nag ren jii feebar bi ñuy gën a xeex mooy bi ñuy wax filariose lymphatique ak wàllu saan yi loolu moo indi ñuy wër di joxe doom yi nga xam ne moom la ñuy sàkku nit ñi jël ko ngir aar ci seen bopp. filariose waa feebar la boo xam ne day joxe li ñuy wax tànku ñey mooy tànk yooyu nga xam day mel ne benn bi day ëpp ba ca des ba pare di dem bay xaw a jéggi dayoo mu xaw a niroog tànku ñey comme ni ko wolof waxee dina indi tamit li ñuy wax xuuxaan mooy indi euh, maanaam ñun li ñuy wax grosse bourse. maanaam day indi nit ki ci aawram day dem a dem ba dafay e, yokk ba xaw a jéggi dayoo ba mel ni saaku boo sol dara su ko defee wolof mu ngi ko tuddee xuuxaan am na jigéen ñoo xam ne da leen di dal mais ñoom da leen di yóbboo seen benn ween di màgg di màgg bay jéggi dayoo su ko defee feebar boobu liñ ci gën a miin mooy tànku ñay waaye day laal yeneen cër di fa indi ay yàq-yàq loolu mooy filariose lymphatique filariose boobu nag ab yoo moo koy joxe yoo bi mooy jële doomu jàngoro bi ci nit ku ko am màtt keneen jox ko ko kon ngeen war a xam ne ku bëgg a aar sa bopp ci feebar boobu war nga ci taxaw jël ci doom yi te di fexe di jëfandikoo ay moustiquaire di fexe di xeex yoo ba koy joxe euh, campagne bi passé dafa wuute ak bii ñuy def bi passé wàllu CPS la woon mooy chimioprophylaxie saisonnière du paludisme saisonnière loolu pour xeex sibbiru la woon sibbiru garab yi koy xeex wuute na ak garab yi nga xam ne mooy xeex feebar bi ñuy wax euh, filariose donc doom yi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci xeex feebaru filarios moom amul effet secondaire comme ni ko bële amoon bële sax gisoon nañ ne garab gi ko ci doon joxe mooy camokine bi camokine moom dafa amoon effet secondaire te loolu ñun bi ñu koy joxe xam nañ ko mais njëriñ li ci nekk moo taxoon ñu joxe ko te garab gu baax la te effet secondaire yi ba ngeen ko déggeek léegi amul kenn ku ci faatu wala ku ci tëdd hôpital diir boo xam ne jàpp nañ ne garab gi gàllankoor na ko waaye bii ñuy def muy campagne MTM bi yàlla dogal na ni garab gi ñuy jëfandikoo di ko utiliser amul benn lor li ci nekk kay mooy dalay aar ci feebar bi nga xam ne moom la ñuy xeex